بسم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي ميلين دين leen زيارة nuyu di leen ziara wala fu mbay serigne si mo len di len ziarah leen siyaara di leen jaajëfal baax a ci and ak nga xam yeneen ko and ak ñun ci liggey bi tay ñu amoon yene andi len ben xissa bu doxon ci diggante serigne touba Cheikhul khadim ak gor yalla gu baax bu nekkon ci rew mi gor gu mandu gu baax gu ragalon yalla gu bari ay jaar-jaar gu yagg sonal borom subhanahu wa taala ñu dëng ko wax suñu maam tafsir moxtar si fasin moxtar euh, sëriñ tuba cheikhul xadim ak maam moxtar penda si moomu xissa bu doxoon seen diggante lañ bëgg a fàttali mbokk yi ndax ñu xam ne lu baax yàgg naay di benn mbokk mi leen koy indil nag dana baax ngeen xam ko mooy kan muy abdul ahad si di doom ci baay sëriñ si baay sëriñ si moomu maamam mooy taawu maam moxtar penda si ndax baay sëriñ si góor gu ñu wax sëñ Ibrahima Famasi mooy waajuram sëñ Ibrahima Famasi moomu maam Ahmadou Binta si mi nga xam ne mooy taw maam Mokhtar Penda si mooy waajuram noonu la demee ci maam Mokhtar Penda si waaye liñ ci gën a rek sëñ Tuubaa Cheikhul Khadim ñu bari xam nañ ne ci njëlbeenam ku teel a sonn la ci diggante ak boromam lépp loo xam ne daf daan day maye ngërëmul yàlla. rek sëñ Tuubaa Cheikhul Xadim dafa daan sonn ca loola fépp foo xam ne su fa demee yaakaar na su fa demee dana fa gën a mën a wéetal boromam gën faa mën a jaamu boromam dana dem foofa ci loolu nag mu bëggoon na génn réew mi gàddaay def suuf yankewu waaye mu tàggu mbokkam yu bari kum tàggu rek ci mbokkam yi rek nga gàntal ko muy mu tàggu ñu baree ba rawatina nijaayam sëriñ Bousso bi Bousso mi nga xam ne mook maam jaara Bousso ñoo bokk wenn waajur ma astawaalo ñoo bokk ndey ak baay sëriñ Bousso Bousso moomu di ndeyjaay sëñ Tuubaa Cheikhul Xadim sëñ bi tàggu waaye mu gàntal ko bi nga xamee ne maam maam astawaalo Mbàkke di maami sëriñ bi nga xam ne mooy waajur maam jaara Bousso wàcc na liggéey fa naaweel ba mu wàccee liggéey nag sëñ Tuubaa Cheikhul Xadim dem jaale ji ko ba ko jaale jee nag ba noppi nag mu daal di tàgguwaat sëñ Bousso be man nijaayam sëñ Bousso bi ne ko ah, yaa ngi si yoon ba léegi mu ne ko waa xam naa ne ba mënoo ñàkk dem mu ne ko déedéet mënumaa ñàkk dem de mu ne kon demal Kumboof fas ne jaay Muxtaar Pend nga tàggu ko nee nañ ba mu demee ma nga fekk maam Muxtaar Pend si fa tóokóor ba mooy fa muy jaamoo yàlla fa muy wéetale suñu borom ba mu demee fekk na maam Muxtaar Pend di yër ab téere ci ni ko ñenn ñi nettalee bi gis ko rek daan xii xii kanaa kii du sëñ Mbàkke mu ne ah kay mu ne ko am naa gan gu ma mas am tey de te saasa rek ma daal am néeg ñu samp ko ca fa toogoor ñambi ba kon doon jaamu yàlla fa toogoor ba yóbbu satalaak gu muy waajee yóbbu fa mbàndam ndox yóbbu fa sajaada gu muy jullee ne ko sëñ Mbàkke dalal file daal koy jox téere Cheikh Omar Fouti bi tudd Arimaaxu ne ko sëñ Mbàkke yëral téere bi le Sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim am fa ñetti fan tàgguma Moxtar Penda Si ne ko damaa bëgg a dem jàll maam Matar Penda ne ko xanaa li xadis bi ne ad diyaafatu salaasatu moo tax ngay tàggoo bi nga fi amee bi nga fi amee ñetti fan ngay tàggoo Serigne Touba ne xam naa de mu ne ko Serigne Mbacke li sa xel mi bu ko def Serigne Touba Cheikhul Khadim ne ko na dee si xamee lu nekk ci xelum ni te waxula ko mbokk yi dégg leen kooku ku toon Serigne Touba Cheikhul Khadim nga jàkkaarloo mu ne ko lii ne sa bu ko def Serigne ne ko na dee si xamee lu nekk si xelam ni te waxula ko. mu ne ko man sama borom def na ku ma ku ma gis xam li ne ci sa xel mi dangaa nar a suufiyankewu topp àll bi di dox di naan ci suuxi ndox yi di lekk ci xobi garab yi ba nga àgg fa ma fa yëntu salaasalaam tëdd wala wala ba dogal bi ñëw waaye suñu mbàkkee loolu du sa mbir téere bi ma la joxoon maax yi Mouhamadou maax yi ci nekk yër nga ko mu ne ko waaw mu juróomi juróomi maax yi yooyu ne ko waaw mu ko ñeent ñëwee liñ kenn ko yow la mooy juróomi maax yi war a moom jamono ne ko sëriñ Mbàkke xam naa danga nga mës a dem foofu mu la foofu mu ma xam naa danga nga a dem waaye yow nii boo ci demee doo ci am dam wax ko yu bari ay tegtal yu bari ne ko soo demee defal jàngale muy si njëlbeenu micc xam naa doo ci yàgg waaye nga tàmbalee ko loolu xam ne Sëñ Tuubaa ak njëlbeenam sampoo na daar di jàngale nekk ci daar yi waajur Maam Mor Anta Sali di jàngale xam-xam di jàngale xeet di fu noonu xam-xam yëpp mu koy jàngale ba nga xamee nag suñu borom fee neen wax ko ne ko rabbi ashaabak bil himmati waraatu waraatu rañ bi darsi faqat yaral sa ñooñ si himma muy àggale leen si yàlla waaye bu leen yar rek ci am jàngam kese ci la sëriñ bi dajale le woon ña fa ñëwoon ñëpp ngir jàng mu ne leen ku ci jàng yëkkati woon nag mën naa jëm seeti feneen waaye ku ci yegg ci yàlla nag eh, yitteel nag mën naa toog sëñ Tuubaa da tasul daara ja waaye dafa soppi dafa soppi doxin waaye tëgu nekkul dafa tas sax daara ja mu ko defal Maam Matar Penn si ne ko defal soo demee nga jàngale muy si njëlbéenu mécc xam naa doo ci yàgg waaye nga tàmbalee ko waaye nag fu mu la fu mu la xam naa da nga mas a dem waaye yoon soo ci demee doo ci am ndam sëñ Tuubaa ne ko fomm naa sëñ bi sax téere bu mu ñëw arrimaw bu Seex Omar Fuuti Taal boobu nga xam ne moom la maam Moxtar Penda si joxoon mu di ko yër dafa dafa bind benn bayit ca xat ci benn xat benn paas ci benn peeg bi noonu rek benn bayit man sarrahu naylu asrarin ida nadara fala yufariq rimaha cheikhina omara loolu sëñ Tuubaa bind ko ci téere rimaax boobu Euh, bi lu loolu amee nag maa moxtaar penn si ci mu baax ma daal wax waa dëkk ma ne leen ku ci am looy saraxe ngeen di ko sarax ko sama gan gu baax gi day waaj a dellu waa dëkk bi andi lu bëree bëri ci ay xeeti sarax daal koy jóor mu bëri lool maa moxtaar penn si daal ne ko suñ lii waa dëkk bee la ko sarax daal di génn li am mbàjj mu rafet daal ne ko lii de maa la ko sarax la ko la ko maa moxtaar penn jox mu téye ko ci loxoom bu tedd ba ne ba maa ko moom sëñ Tuubaa ba maa ko moom mu ne ko yaa lew na la doom euh, sëriñ Tuubaa ne ko joxaat naa la ko addiya waa si daan yi fi gëjoon na fi jamono Seydina Abubakar Siddiq yaa ko sëñ Mbàkke yaa ko loolu amee nag sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim bàyyi ko fa dem euh, delloo ci nijaay ci nijaay bi suñ bu suube am demee mu ne ko ah noo defal sa nijaay si nag mu na mu ne ah, ba fomm nga mu ne waaw mu ne ko ah moo ne ñu nañ la mu ne ko waa Fomone waaye moom Fomine seen Fomine ak Fomine mi dafa am dafa dañoo bokkut yéen dafa mel ni damaa yoroon aw yet fu ma ne la yet bi rek ngeen wàccal sa yet bi moom nag ba mu wàccaloo sama yet bi damaa jox jaasi ndeysaan loolu la ko wax sëñ ma sëñ Bousso daal di ciy bëgg lool ci fomm gi nga xam sëñ Tuubaa fomm sëñ Tuubaa Cheikh Xadim fomm na ko moo tax tey jii képp ku jëriñ sëñ Tuubaa Cheikh Xadim war ngaa gërëm Maam Moxtar Penda Si ndax bu dul ko nag moom dana dem. te bu demee yaakaar naa njëriñ la njëriñ li day dem la mu ko wax sax na ci ko wax ne ko yow de ba ko ne li sa xel mu ko def yow de ndam nga loo xam ne yàlla yëkkat yëkkat na ci lu ko soob ëmbum njëriñ bi nga ëmb ko say bokk sukk ko boo léegi jàmbur di ñëw di ci xaaraan si ñu ciy jox soo ko deful foo ko mën di yóbbu de say bokk danañ ñëw xaaraan ko kon ëmbum njëriñ bii nga ëmb ko imbi ko fii say bokk sukk ko ndeysaan te ñu mosoo bi daal di am mbégte lool ci ci loolu xam ne gis nga kon maam Moxtar Penda Si wilaay gi nga xam ne suñu borom joxoon na ko nga xam ne daana wax ne ku weddi sama wilaay na wax sama xel ma tontu la daana wax ay sëtam bi nga xamee ne Mame Matar Penda Sy ni ngi waaj a wàcc liggéey di wuy ji boromam di wax na ne bokk la mu wax de sama dund gi de <clears throat> ñaanu ma fi yàlla lu ma may jéem ma ma tële suñ ma faatoo nag suñ ma dencee suñ ma robee ku ma faree sowu maramu la ku ma faree penku na xaw ma ci yow dara loolu moo tax boo demee Sine Mokhtar maam Moxtaar Penda si nekk ci kanam mm, xab xabir yëpp nekk si ginnaawam ci soowam neen ba ko Sëñ Tuubaa seen xarit dégg wax ji dafa wax ne dafa waxee noonu waaye foofu ba ca ndox ma kuñ fa kuñ fa denc mën na koo ràmm waaye gis nga kon yàlla ni mu barkeel ay mbiram jaar gi nga xam ne Sëñ Tuubaa jaar na ko ci maam Moxtaar Penda si mu fomm ko loolu moo tax ba de ba sëñ maam Moxtaar Penda si am ñaari doomam kii di sëñ Mor Khady si di sëñ Malick Bassine si maam Moxtaar Penda di seen bàyyi ñu tàgg ko. dem jaayante Sëñ Tuubaa Seexul Xadiim jox ko seen bopp ca jannaar ca xumaag maam Moxtaar pend seen nangul leen ko maam Matar kon xam naa teel na xam si kan mooy Sëñ Tuubaa moo tax bi ko ñaari doomam yooyu tàggoo ngir dem jaayante Sëñ Tuubaa jox ko seen bopp mu nangul leen ko gis nga ñooñu tamit ni ñu barkeelee xam ne tey kenn ku ne si ñoom Serigne Mor ak Serigne Malick Bassène si ak Serigne Makhady si kenn ku sanc nga ab dëkk sa juróomi dëkk say doom sanc ne ay dëkk ay say sanc ay dëkk say taal sanc ay dëkk te dëkk boo ca dem ña nga fay jàngal alquran di fa jàngal xam-xam jàkkaa nga fa wala jumaa wala daari alxuraan loolu mooy xista bi nga xam ne doxoon na ci diggante maam Moxtaar Penda Si ak Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu waxoon nañ ko ni fàttaliku mbokk yi ñu xam ne lépp benn la nga seen maam Moxtaar Penda fa mu toll woon ci yàlla ci ak wilaaya ak ragal yàlla ak àgg ca boroomam ay doom tàgg ko dem jébbalu ji nga xam ne naru ñoo naru ñoo maanaam bokku ñoom ñoom tarixa bokku tarixa bi seen bàyyi nekk ñu bëgg dem ci beneen tarixa nekk ca mu nangu leen ko nangu gu rafet loolu day wane ne kon mag ñi ñoom bennal rek moo doon seen yitte te dégg naa ci aj maam Samba Seck bu Koungheul suñu baay ju baax yal na yàlla doole ko yërmande ngërëm ak leer mu wax ne euh, mu wax ne suñu ba Basiru sekk borom Touba saalum moom suñu maam Seydina Alioune Seck nettali na ko ne ko euh, maam Matar Pende bi nga xam ne suñu Mor Khady Seck suñu Malick Basse nekk nañ xumaag suñu Touba téye leen fa ba keroog ba mu leen di yeewi daf leen wax ne. ñëw leen dellu ca njaboot ga xanaa seen baay mag la du ne suñ baay de mag la mu ne mag de euh, fekki ko moo gën toxal ko dem leen bu ngeen demee ngeen yorol ma seen baay ba gisatu leen ko lépp loo xam ne su ma gisoon defal ma neen ko defal seen baay jooju baax baay ju baaxat yombut sàkka seen baay booba euh, nee na alaaj maam Samba Seck nee na alaaj Basiru Seck nee na ko dégg na ne Sëñ Tuubaa maam maam Matar Penda Si nee na fa mu toog ci Siin Muxtaar fa ca Kumboof kon wala fa mu wala fa mu nekkoon daal ba leen Sëñ Tuubaa di ñaanal di yeewi sëñ Mor sëñ maa ñu war dem seen baay maam Matar Penda fa mu nekkoon fa mu toog te fa mu toog te dëkk ba mu toog wala si kër ga mu toog wala béréb ba mu nekkoon wax na ne su tàllaloon loxoom de bu Serigne Touba le si loxoom lay taflee waaye mu bankaar ay loxoom ne su ko defee day mel li ñu def da koo neexut waaw kon loolu mooy xista bi doxoon si diggante maam Matar Penda si ak Serigne Touba Cheikhul Khadim seen bu Abdoul Ahad si bu daaro moo leen ko doon indil wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu